نعمته كان أتل ألفالا أقلا من الغنم هم في كل مترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم مولاي سلم وسلم دائما ابدا وواو على حبيبك خير الخلق كلهم والدل في فكادوا يعبدون بي أشلا أشالت مع الإقبال والرحمين أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم تمضي الليالي ولا يدرون عيدتا ما لم تكن من ليالي أشهر الحب كلهم كأنما دين ضيفا حل ساحته بكل قرم إلى لحم العدا قريب أبدا على حبيبك غير الغال كلهم يجر بحر خمس فوق سابحات يرمي بموج من الأبطال ملتزمين يصلي وسلم دائما أبدا مستجيب لله محتسب يستو بمنتسل للكوف مستلم يصلي وسلم دائما ابدا خالق لهم حتى عادت ملة الإسلام وهي بهم من بعد هربتها موصولة رحيم والسلام على غبيبي خير الخلق كلهم مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئم لنا أبدا على حبيبك خير القال كلهم هم الجبال فصل عنهم موسى ما زار أي منهم في كل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 وصل حنينا وصل بدرا وصل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم لا يصلي وسلم دائما أبدا بالغال كلهم المسدير البيد حمرا بعد ما وردت من العدا كل مسود من الإمام يصلي وسلم أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم والكاتبين بسم بالخط ما تركت أقلامهم حرف جيث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 شاك السلاح لهم فيما تميزهم والورد يمتاز بسيما من السلام يصلي وسلم دائما أبدا خالق لهم تودي إليك رياح النسر نشرهم فتحسب زهر في الأكمام كل كمين أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم في زهور الخير نبت روبا من شدة الحزم لا من شدة الحزم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم ذهبت قلوب العدا من بأسهم فارقا فما تفرق بين البهم والبهم صلي وسلم دائما أبدا الخلق ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي لنا أبدا على حبيبك خير الخالق كلهم ولن ترى من ولي غير منتصر

أحل أمته في حرز ملتي كليس حل مع الأشبال في أجمي صلي وسلم دائما أبدا للقال كلهم كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خاصم البرهان من خاسمين الخالق لهم كفاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية وتأديب في اليتم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 على حبيبك غير الخالق كلهم يا ربي صل على المختار من مدار والأنبياء وجميع وصل دائما أبدا على قبيبك خير الخلق كلهم وصلي ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لتيدي قد آه، يا سلي وسل لونائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سماه في الله وجدا وهجروا وله آووا وقدنا وبينوا الفرد والمسنون وعتفوا لله واعتصموا بالله فانتصروا أزكى صلاة وأنماها وأشرف يعتير الكون ريان شريع الله أجرا معبوقة بيخ المسك ذا من جيبها رجو ردوان ينتصي عد الحاثى وثرى والرمل يتبعه نجم السماء ونبات الأرض والمدر وعد وزني الجبال يا لي خطر جميع الماء والمطر كلهم وعدم حوت الأشجار من ورق وكل حرف عدا يتلى والوحش والواشي والطير والأسماك معنا آمين يليهم الجن والأملاك والبشر وذر والنمل مع جمع الحبوب كذا وشعر وسوف والأرياش والوبر بكلهم وأحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقلم نعمائك التي مننت بها على الخلائق مسكن ومزح شير مولاي مقداره ثام الذي شرف به النبيون والأملاك وافتخروا بعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث سوى وفي كل طرفة عين يترفون بي أهل السماوات والأرضين أو ملء السماوات والأرضين مع جبال والفرش والعرش والكرسي وما حسره كلهم فما أدام الله موجودا وأوجد ما أعدم الله موجودا وأوجد ما أعدم الله موجودا وأوجد ما دوما صلاة دواما ليس مولا مولاي آه، صلي وسلم دائما أبدا على قبيبك خير الخلق كلهم تستريق العدم جمهد جمه ما تحيط بالحد لا تبقي ولا لا غاية وانتهاء يا عزيم ولا لها آمد يقدى فيعتم وعد أضعاف ما قد مر من عد معدي في أضعافه يا من له القدر كما تحب وطرد سيدي أمرتنا أن نصلي أنت مقتدي مع سلامك ما قد مر منه ربي وداعفهما والفضل منتصر وكل ذلك مدروب بحقيقة أنفاس خلقك إن قلوا وإن كسروا كلهم يا ربي وفي لقارها قارها وهميها يا ربي وفي لقارها قارها يا ربي وفي لقارها قارها وحافظيها والمسلمين جميعا أينما حضروا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم ووالدينا وأبدا وجيراتنا وجيراتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر صل وسلم دائما ابدا على حبيبك غير الخلق كلهم قد آتينا ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يزور ترحمنا بجاه من في يديه صبح الحجر مولاي صلي وسلم ملابدا على حبيبك غير الخلق كلهم الهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خادعا والقلب منكسر كل غيم نرجوك يا ربي في دارين ترحمنا بجاه من في يديه صباح الهجر آية سلي وسل دائما أبدا آه حبيبي كغير الخلق كلهم يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحازر أيا صلي وسلم كان أبدا على قبيبك خير الخلق كلهم وقدي ديون الله الأخلاق دائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وصلي وسلم دائما ابدا على طبيبك خير الخلق كلهم وكن لطيفا بنا في كل نازلات illutufan jamilan bil ahwal tanhas bil mustafa al mujtaba khairil anami wa man jalalatan nazala fi madhis ثم الصلاة على المختار ما تعالى شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الرداء عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفص الفاروق صاحبي من قوله الفصل في أحكام عمره

له المحاسين في دارين وغيره أي صلي وسلم دائما ابدا على غبيبك خير الخلق كلهم كذا علي ما وابنيه ما أولو العباء كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن عوف طلحة عبيدة وزبير سعدة وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر من زالت به الغيار والآل والصحب والأتباع قاتبا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 وارضى عن شيخنا تيجان قدواتنا شيخ المشايخ يا توبى لنا ذبر مولاي صل وسلم دائما كلهم وعبد عن شيخنا تيجان قدواتنا شيخ المشايخ يا توبا لنا ذوره آه، يا سلي وسلم للغاء كلهم وعبده نجلي عثمان الذي انتشرت به طريقته يا حبذا الوزراء آه، يا سلي وسلم كلهم يا ربي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب وآل البيت كله على النذير وآل البيت كلهم على شفيع وآل البيت كلهم صلي وسلم دائما غير الخلق كلهم مصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا المختار في القدم في القدم وصليا يا إلهي واجزينا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم di nuyu bu baax sinu sunu sang di ca sët si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di Chérif Tourate Aidara di ka dalal tey moom ma ne ko lu bëree bari bari bari macha allah yàlla yàlla suñu borom barkeel mu ñëw àndax tamit suñu baay suñu kilifa suñu wasiila suñu lépp di alhaaji Masamba Gueye di muqaddam Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour tey mu fas ñu bégal incha allahu rabbi waaye niñ koy gisee nii nag def na lu ne pour mën a ñëw ndax euh, fële ca ripa Ibou Seyni caw euh, laay dafa war a ñëw di sët si maam Baye laay maam li maamu laay mu war ko dalal waaye mu ni ñu lu mu xat xat xat dinaa ñëw moo tax dañ ko koy xaw a oyofalal dañ daan woy ba pare soog a def waxtaan bi dañuy jox euh, Papa Cissé rek mu daal di koy ubbil bu ko ubbilee incha allahu rabbi mu baaxee ñu li mu ñuy baaxee incha allah après bu ko defee ñu bàyyi ko mu dem dale ji gan dalal ji gan bi nga xamante ni moom moo war a ñëw wakaam bu ko defee ñun ñu àggali la si des ñu ngi nuyu bu baax Babacar di nuyu tamit suñu imam suñu sëriñ euh, Seydi Cheikh Omar soow di ko ñaanal borom bi subhanahu wa taala kon bismillah bu baax ارحل لطيبة لا تم سواها فعصاك أن تحظى برؤية تاها

xam ñoom dañoo ay feem waaye maa ngi jóge comico ne imam moom doom la si ñun ndax ñu ne woy juróom macha allah woy juróom mooy laa njëkk dëgg mu firi taysir ba mu jeex daari axyaar ci biir kër bi ëtt ba euh, dañ ñëw rek ngir ziar leen ñu ngi ànd ak Chérif Tourate muy sëtu yonent bi moom mii nag am na programme le 18 novembre may ñaan xale yëpp ngeen ñëw ndax am ngeen ci wàll waaw dégg ngeen ah mi chaque at fa lay nekk ba fajar waaye imaam dafa am lu mu wax léegi comico muy nit ñi ci xel mooy lu tax alaaji malik tàmbalee xilaas alhamdulilahi ba noor ba pare door a indi suma salaatu wa taslimun yafu ala miskin wa randi ala sil fatti wala xam dafa sant ba noppi xewal gi ñëw cant gi moo jiitu xewal gi kon waroon na mën a indi xewal gi ba noppi door a sant yàlla mais bi ko yàlla bindee muy nit rek la jàpp ne yàlla defal na ko lépp moo tax mu commencé sant loolu nag suma salaatu topp xéewal wa taslimu ak mucc yafu ba gën a kawe ala miskin xam nga misk parfum la ak rand yëpp ay xeetu parfum ay si gëtt yooyu gëtt yi gëttu misk ak rand mooy gëtt parfum yi gën a kawe la alaaj Malik cité foofu kenn sudi Haaj Malik waaye xoola ñaan li mu indi ñaana ko askan wi maa raxdaa raxat waaw هادي لها alaji malik nene fek malaka bi yor dëndu asamani mi ngi koy mu yëngatu deng Deng, nene na salatu na salaatu do te ko ci sen kaw ak mo ñaan mu ne pétaax fekk mi ngi teg sa tàggam ma ca piccam ma ca doom ja ca nen ba yàlla na salaatu ak salaamu dot yi ko suñu kaw mu ne fekk yàlla mi ngi jël xalimaam samp ci daal di ci bindoom aadama yàlla na salaatu ak salaamu di dottee ko suñu kaw kenn moom imaam yàlla dafa jël ci leeram wax naa ko sànq komikoo mu lay répété fii rek bind ci asamaan asamaan sey mu bind suuf suuf seey mel ni yàlla xamul li muy def xam na li muy def dafa mel ni nga jël courant Senelec branche télé day lakk yàlla nag jël ci leeram nag bind ci beneen leer nag teg ko nële leer gi di tëb am na ñoo xam ne juróom-ñaar fukki junni at door daw muy leeru Seydina Muhammad lu mu bindati nag ma nga départ ci leer googu lu mu bindati rek ca legal départ mu ne mu ne wa xalqu axlaax wa xalqu axlaaxi baasu muxaddima tusaab la wala tanami bind gi yàlla bind doomu aadama yeeg lépp lu mu bind baxsu anbiya ak yónni gu mu yónni yonente yi muxaddimatun li zuhuri ngir jiital la ak feeñal hmm, waajaa ngi si ginnaaw muy ñëw da mu ne faxlam xamal wala tanami bul nelaw na nga xarañ soo koy nettali naka bañ a jóom waaw bu Macky Sall di ñëw président motaar yi daw nga yaakaar ni ñoom la du ñoom oto yi ñëw du ñoom dañuy signalé ne waajaa ñëw ci ginnaaw kon ñooñu dañoo annoncé ne mi ngi ñëw moom rasulillah mu ne mu ne mu ne inal xawaalima haaliha wa saafila inal xawaalima haaliha xoolal ma bëñ xoolal ma bëñ xoolal bëñ xoolal rek Malik dafa am lu mu tontu parce que yonent dafa wax ni kuntum nabiyan arifan bi nubuwati wa aadama baynal maayi wa tiin cheikh rek moo ko tontu ñoo xutbul wujudi lazi bu leen ko way de abdul walaay waaye rabbi wa aadama baynal maayi wa tiin nee na maag sama maam ñoo bokk benn bis benn heure benn minute bu ñu tappal garab maa moom maa ngi moo tax moom moom feelu ma moom bi mu ne kuntum nabiyan arifan bi wa adama baynal maayi watiin mu ne xutbulu rabbi wa adama baynal maayi loo teg wa allama xamal na ma mu ne wa allama xamal na ma allahu yàlla haadina aji gind sunu nubuwatoo sama nubuwa te boobu kat wakaana nekk na kan sa maam aadama bay na nasi wa nasam xoola léegi jóge na ci bay na maay wa ndox ak ban mi ngi ci bay na nafsi wa nasam mooy solo ruu ak deret waaw bam fa tollé la ko yàlla xamal mission mais ki bokku ci han une la rawahi yi way sellaro yi ba jassat balla na mi ne loolu xudaatu ci ngën nga le fa inno nakum ko moom aljun la lax la max jun suti mooy mbellu urus nga mbellu urus urus buñ ko xossé la ci wàcc gën ci moy mbellu urus ci la rasul wàcc waxal ko axlaaq waxal xu axlaax yi mu ne bind gi ñu bind ñëpp bax su anbiya ak yónni gi ñu yónni yónnente wax naa ko sànq muqaddimatun li zuhri faxlam wala tanami ma ne sànq rek rasulillah yi leeram gi jaarul ci maam Adam déedéet ah ah bi ko yàlla wàccee ginnaaw bi mu ko jaarale ci kiraay yi kullu ijaabin aqaamal badru min fiihi li caaxaati ma daal bi laa salami kullu ijaab bépp kiraay ak Malik nee ne kullu ijaabin bépp kiiraay aqaama sax na ca albadru weer njol màkk ci njëkk yu sabbihu muy sabbal allahu yàlla fii haa ca kiiraay waaye nañ bàyyi nañ bàyyi caaxaan waaye caaxaan baaxul moom ñew dañ fi ñewoon di waxtaan jéggi leer gi jaar tuuti ci juddu gi ñew ba ci génn aduna gi ñuy nga ne nañ ko fi téye ba déwén. waaw non la demee woon. te fàttaloo ma ko sax waaye man fàttaloo ma ko demee xam naa loo nga waxoon dama wax sànq ma ne yàlla amul kenn ku mu jël tàggu la ku du rasulilaay ki ñuy waajal bisam aha yàlla ah waay ëpp ëpp na boppam loolu yàlla du reyee yàlla ëppal la boppam di rey doomu aadama ko ñu ne ah yàllaa ko yàllaa ko jël yàlla jëlul kenn yàlla day yónnee am ku jël yàlla ëppal la boppam di rey nit ak ñi nit mel sëñ Mansour nee ne yàlla dafa bind at àdduna ba noppi inspiré wu ci àdduna bi nit dafa xool àdduna mu taaru mu inspiré wu ci àdduna bi nit li quoi simaani looy wax nii mu ne suuf si mooy yàpp doomu aadama bàq bi montagne yi téye suuf si mooy yaxu doomu aadama montagne ñu téye suuf si moo tax ñi ñiy màbb montagne yi di ci dëkk xamuñu li ñuy def mooy intramantaire yi te montagne yi mooy jiñ comme yi ñoo téye suuf dañoo tegg ci kaw kon si suuf rek moo des di yànq tax suuf yëpp da nga yëngu fu nekk nii yàlla lu mu def am na lu tax ñu ne ko si mu ne ndox yi ak deret ji moom mooy dex yi ak ndox mi nek ci gaw suuf waye sa siddit yi muy jaar mo moy yoon yi nga xamanteni fa lay jaar ñu ne ko simaali gantax bi mu ne moy sa karaw mooy sa karaw bu xine moy mer nga su melaxé moy ré nga bo joyé moy tawna bo boo ba nga wax moy dëndu mu ndi indi ci aduna penku ak sawu mu ne moy sa kanam ak sa ginaaw moo indi tàngaay ak sedd mooy ndaw day tàng mag day sedd moo indi dund ak dee boo nelawee boo yeewoo ah boo nelawee dee nga kenn nag rek la ñoo jël ruum tàgg ko mu wax ne mu ne waxtaara mawlaawu

way juru jigéen wi defaral ko mu sangu mu lekk ba noppi mu ne ko man dafa ku ma dénkoon alalam waaye nag fa soxla alalam te man noppeegu ci mu ne ko waaye yow baadoola nga nit dënk la alalam nga jëfandikoo ba ba sonn mu soxla nga bañ ko jox mu ne ko jëf yàlla ki mu ñu dénkoon jël na ko lu alalam la waxtaara tànnloo na ko moom yàlla mawlaahu boromam rasulilaay tànn xayruhu wuy ji borom ku mu doonoon fii ñun la kaay dem léegi àjjana mbaa nga dund saa nga ne boo bàyyi ma dund rek su ma paree ma arrangé ah dem léegi xamoo lay fekki mais moo xam ne la muy fekki. waaw Alaaji mu ne xam naa kañ la feebar bi tàmbali mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche muy 13 jours altine 14e jour. موضوع ماودو بيندل مون هوا يدان ان دبع الفتاو به انا رحيلو في يوم العالم هوا لاخنا سي فيبرم يدان يا فوك لا ديل نينت لا دما خول لي مو باندو مون فاس لن سي بروم خام خام الله اكبر دا فا ماندو مون لي اوب سي بروم خام خامي لي لا ني فاس بوكو نيوخان مون لي مو ام نا لي اوب سي بروم خام خامي لي لا ني واخ مودو كاني لا فاتو نيات الله مون خمناكو فان لا فاتو خمناكو موي اتي وا مختازن ala جلالين دواو في سفرين مولاو للكرمي اني في مفاتو اك نيك بي اك اور بي في bi fi yow ma dihi fi bayti hayshatin wa ordiya ñi ne atum fukel ba genn gannaaw gaday ka ci 52 ans plus 11 égale 63 waaw moo xam ne atum fukki ba benn gannaaw gàddaay muxtaazan fekk làq na ala jëlali jin ñett la ak ñaari laam bu nekk 30 la plus 3 égal ba mu ko amee dawaaw la ko woo ko mawlaahu boromam fu mu ko jëmee lil karami ci àjjana ji teral ko ban weer la mu ne fii safarin kon aha jamal dehi ci bisu juddoom ba ca la faatu mooy altine ci bay ca Aïchatin ñu ngi sonn Aïcha waaye xab la sawaal diggante midi jëm deux heures fi jant bi dàngara ñu ko rek fa la faatu bi jant bi ëlbatiku rek fa la rug yi moo tax boo ñëwee ci ci juddu gi juddul guddi ba cëg ndax guddi ak bëccëg dafa am fu am leer am fu am lëndëm te ñëpp ñu nekkoon ci lëndëm mu jël leen ci lëm wala indi ci leer moo tax mu judd fajar nga xam dañuy xëy rek bësëg ndax moo indi leer déedéet bokkul ci ci ci bëccëg waaw fa la gane aduna moom rasulillahi waaye xam nga lu mujjee dénkaane ak lu mujjee wax alaaj maa ne bokkul de li mujjee wax ak li mujjee dénkaane bokkul déedéet mu dénkaane inna salata wa mamlukan la akhiruma awsa bihi mustafa fi alati al lu mujj denkaane lu mujj wax jalal rabbi rafiinu kana akhiru ma takallama al mustafa bi tilkal est-ce que xam nga eh, ni koo gis mu naan du ma julli du ma war nangam nangam ab yéefar de ah maa la ko wax toujours ma wax leen ko fii ak fudul fii soo génnee léegi gis benn waaye bu yor marteau ak sii defar ay lal ak ay armoire noo koy wooyee. ku di nga gis même waa ji mu yor marto armoire daaj ji palanteer jàmbur noo koy wooyee. kon la may def noonu la tudd bu jullee jullit la bu jullul yéefeer la yaa ko wax ku julli jullit nga ndax même waa ji nga gis si suba mu yor même outil daaj ay lal ak ay armoire nga ne kii menuisier la. guddi nga gis même waji mu yor même outil dagg palanteer nga ne sacc la kon lamuy def loolu tuddu ah alaaji mal ne nak limu ñu wax moy yalla la rabbi comme dañuy tënk rek kaddu suñu borom moomu ci làmmañu waaye xam nga lu yéme imam dafa gëna aduna alti ne ñu rob ko alarba alaj maa nee ne xam naa lu tax bu ko way min daax shaytan axaro daf na nabiyin wali sama yow la kala amri himi ñu ko lo rek la mëna dedet wa kana oxri sa ousmane wax bi la faaruux waqi da lay sal bu him wa sadam la ilaha illallah yéexee nañ ko rob borop ko alarba xam nga lu tax yéexi rob bi xam nga lu ko waral ak wuté ko amon seen biir ñu ko Maodo loolu rek la mu ne déedéet wa kaana uxri sa Ousmane wax bi la Faaruux wax li sa buxi ba salami saa saaba ya fa nekkoon ki lafañ na ki mu mën a ki dof na Omar ne ku ne dee na ma rey la yor jaaseem rek waaye am na ku ñu déggul de jafe na dégg turam ne Ababacar Saddiq ak jafe dégg turam xam nga lu tax bul way ba ñu ne ñu ko lu ñu wax Xadijatun wa aliyun wa man bi daaxooti ana Ababacar wa man waaja nga xam ni bi daawati ci wuyom ba jëbbalom ba Ousmane Zou Salami ñoom Ousmane ak gaa yëpp si nañ bàbbe ko ñu ne ah comme ponkal mi nërmeelu la kat <laughs> nañ dem moo nekk fa woon dafa aye ji woon xam ko waayi woon alaaj mal kenn moom nee na muwaas bi ni jabal mooy maas masamba muwaas sama turando bañ ko wooyee Ibou Sakho nee ne ku wax ni tiitul Babacar Sadiq xamoo li ngay wax dafa maf ñaandu gëlëm xam nga maf ñaandu gëlëm mooy gëlëm ni koy yësal waaye yësalu ko da ko bàyyi mu taxaw rek mu tëb war ko ku ko joxatu doot ko war ko maf ñaandu bi mu ñëwee nag dugg ci néeg bi tëj néeg bi caabi ko nekk ci biir Maodo nee ne xam naa li xew ci biir néeg bi Maodo bu ñu jaaxal waay mu ne jaasa yuqabbi lahu yabki yaqulu lahu atibta yaa لنا جاسا يقبل ma ne bi bi mu génnee àdduna ak bi Maodo juddoo kenn xamul ñaata ñaata at mu ne xamna li xew ci bir nek bi bi Ababacar duggé ci nek bi tek nek bi nek ci bir mom mo wax rek xamna li xew ñëw na fon ko ci lex bi fon ko ci lex bi ma ngay joy bi mu jooy mi ngi wax la muy wax xamna naa ko xatibta ya badru fi alayka wa salam assalamu alaykum imam imam dama xamul komiko ak yow nu ma leen def parce que ko ne xamul may def rek ñu ma tax kone kon ne ma lu ma def la dafa tax yow li mo dafa tax waw da ñaanal yalla rek ah defana sa portable bañu soné xawma ñom la xawma kenen yalla bu mu nek ñom rek parce que nak ah alaaji Malik, li tambu xam lepp rasulillah yi wax ko dem fi malik yee dañu dajé malik dañu dajé te jamono bobu ñu ngi sentu malik malik dajé nak xamuñu kan la Alaaji Malick Sarr foofu la moo takk soxna Fatmata si taw Alaaji malik moo jur sëñ Mounirou Sarr Alaaji Malick Sall maamu Seydi Jamil jamono boobu la Alaaji Malick Cerno Malick Sow bu jàngal Alaaji Malick jamono boobu la Alaaji Malick Wilane jamono boobu la kooku laa la wax ni moo demoon seet sëñ ba si Alaaji malik Ndar fekk sëñ Babacar gane àdduna mu ne ko am naa am naa gan mu dugg ci biir rek génnaat ñu ne ko lu tax nga xanaa da nga gaaw génn de damaa dugg rek lii bi jóg na ma man la Babacar si mu mu génnaat Malick yooyu yëpp nag ñoo ànd ne an laaji malik bu ñu amee lënte mbind ñu ne an laaji Malick moo indi tur Maodo ndax papa yi Baye Niass am Abdoulaye Niass tudde ko Maodo kon ñu ne kon Malick bi ñoon xaar te mu àndandoo yonent bi nekk niir di ko di ko leeral Malick mii la Malick mi ñoon xaar te mu ñoon xaare Badar tasaat suñu Babacar si fasal ak moom kóllëre Malick mii la Malick ñoon xaar te Cheikh la déclaré mi ngi ñëw Chamar Fouti bind ijaasa jox ko Malick mii gisagu moom ku ku jàpp ku defagul examen de am diplôme moom moom rek ji bind diplôme bàyyil ko fi juddoogul defagul examen ah imam dëgg-dëgg bëggoon naa mu gën a yàgg mais boo xoolee dama parax paraxi pour rek bëgg a dem fële jarna fi jarna fi jarna fi bo xolé ah macha allah kii sax sànn ma téere bi khilas hein ah, hein ah. waaw waaye il faut ngeen ma dimbale parce que beuri tam du ki beuri demul non والقرآن نينا بشرى منصور قاتل والله سر قيل مولي من أبدونينا أكرم بكم منصورا يا سعد الورى كف العشيرة ملبى العرفان منصور قد هو مام أبدونينا سرا خلافتي موردا مم أبدونينا منصور سن تليا لشين تغني بخا لو ليلي جادو دفل بدون توان فكم منصور قد ولا سر خلافة مورد مم أبدو نينا نتنيانجي لي شلت الإله كدائما دخل مدلل مي بلا نهزا أبدو بسرعة

في ضاء بقوري الله إلى هبة كان أحيار وأسرار يجيب أبدا جاء يسأل يا ماني أنا أنسو لنثأر أحرار يا فهما يا ألطف بيتنا يا ضحيا زبلا لنحائرا سار الله جنايه ضيا زضلا لنحائر نزار كوني رافيل لو بوخ ام داخي جيرين نانال بروم بي سبحانه وتعالى يالا ساملين ستورال لين ديفال لين تيلاغا ادوناك الاخره دي رافيل لوار بوخ جار جيغا خامتيني سونو باي ما سامبغي جار نكو في di ko ñaanal moom tamit yàlla sàmm ko suturaal ko comme niñ ko gisee rek temps bee xat ba tax ñu jiital waxtaan bi euh, si si way yi kon nag yàlla yàlla suñu borom barkeel mel na que euh, gars yi moom ñuy commencé dem ci waawan dafa mel ni mais yàlla yàlla barkeel lépp ñu bàyyi xel bu baax tamit suba incha allahu rabbi dañuy tëj ñu leen di fàttaliwaat képp ku nga xamante ni rek am na lu mu ñu bëgg dimbalee si ni préparé pour tëj bi incha allah bu ko joxee paa ji rek wala sanga ñoom dinañu taxawee loolu lépp lu si waay mën a contribuer rek si dooleem wala ci alalam lu mu waay attan rek incha allahu rabbi ñuy gërëm bu baax tamit di ñaanal waa OTV si taxawaay bi di leen ñaanal suñu borom yàlla sàmm leen yàlla yokk leen defal leen sutura àdduna ak àllaaxira réussite si biir ak ci biti incha allahu rabbi kon bu defee mu mel ne heure bi ñu daan tëj jot na kon nag ñu eh, kii rek booloo jàng fanaan ci naa incha allahu rabbi ba ëllëg dimanche bismillah فنجنا يا قلق الشيطان من كيده وسل بالإيمان نيراني وكل مؤمن معدل أنيتاتي يا ربنا فاقضي لنا القجاتي وقاصدا وقائدا ومفسدي الدين والقراءة يا ربنا ومجيب السخاوة كتابي أوابي أدعو ببسم الله والمساني وآية الكرسي ذي المعاني توقيدي ومن دعا بذي الله اليقين يجب ما رام من المتين مجيب يا مجيب يا مجيب قريب نسألك تسليم بالقضاء والصبر والرضا لدى البلاء مصطفى والخلق بالحق أزكى صلاة الله والتسليم على الذي بشر بتسنيمه الرائي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مالك الكونين حين إله السر في الدارين ماتنا دين نبي بي آمين آمين فجيب دعاءنا ولا تقيب سيدي رجانا بالأمان أنا مولانا يا نيال في ولي سيداني

محمد وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما سبحان من الجم كل متمرد بقدرته سبحان من نفذ في كل شيء حكمه سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورد نفسه وزينة عرشه ومبلغ علمه وآياته سبحان بجاه وبركته اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ورق